Ah. islam bikum juróomi téeméeri junne ak ñeen fukk yu toftal juróom benn téeméer moom la waa Benno Bokk Yaakaar dajale ci ay parrainage te diwaanu Ndakaaru info yéene kaay moo ñu ko xamal ne lu ji njaaga nag du kenn ku may Amadou Ba signal bu fort la def ci biir yéene kaay bi moom Amadou Ba nee na suñ mënee am parrainage yu bari yii dara warul ko lu dul fa ñoo ànd ñun ñëpp juboo léegi nekk benn Aminata Touré Mimi feelu ko mel ni ku naan ko Amadou fi mu toll nii nag benn combat rek lañ xam ñun ñëpp te mooy faxe ba hëppale ay député ca assemblée nationale am ndam lu yaatu ci kaw ku jégi te amuñ ci sikki sàkka na fa ñuy mbuqi ku jégi le quotidien yi ne kaay ne waa bennoo yi kaay def nen lu kenn mës ta def ci parrainage bi lañ dajale hée xapp ak lakk du ko jeexal fa bari ba jéggi dayoo te lépp liggéey amadu Bala moo xam Macky Sall fa koy def tête de liste nationale wala départemental ak lu mu ci mënti doon coowal Amadou Bala fi mu toll nii mi ngi ne tulleeg màlle Mimi Touré ci Vox Populi ne faa leen di xamal gis nga bu bëri bii war naa tax suñ xel dal ndax sénégalais yi ñaareel kuñ parrainer rek moom la ñuy woteel kon suñ ndam li amul sikki sàkka fa defal affaire gaañi laa si na leen seen waa ji Macky Sall fi mu toll nii fay ngoro askanu bawal maanaam fa bëgg bool bool yi woteel ko yow seetal ngir mu mën a xam li ni mel nag moo tax ma ngay ngoro ak a neexal waa bawal ndax fa wax ne fay tabaxal diiwaanu Mbàkke stade bu be tàq ñu ne déetewaay askan wa yeewa ca Taïf ak Sadio seen yoon yu bon ya Macky ne na fa koy defar ñu ne déetewaayaati ndaw ña ca bawal mu wuta leen xëy liggéey ma nga jeexale nag ci foqarti nangu député PDS fekki na Macky si du quotidien ne faa bëgg xam ne gis ngeen wote député yi su ko Macky hee eh, intaha c'est sefini su ko wóore nag pare na du baax ci moom moo tax ba kanam bi la ci teg de leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne waa PDS yi xamal nañ seen doxub ñaxtu ni ki démb ca géejawaay lépp ngir sàkku ci Karim Wade mu del si waat Sénégal ba pare ñu delloo ko ay xàqam ci mën a bokk ci ay wote yi ni mel lii yéene kaay moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom Dakar Times mooy fi mu toll ni Ndakaaru njaay wujjee gu métti ak diirante mbagg moo fa xam diggante Barthélemy Diaz ak Bamba Fall faaleen di wax man ne Cheikh Abdou Bara Dolli rallié na léegi waa wàllu la àndal source a yéene kaay mag ngay leeralal yoon wañ jaar ba juboo joxante a joxante loxo député yi muy waa buntu bi ak bokk gis-gis la tax yëf ya yàqu surtout a ma ngi koy leeral ba tey yéen a kaay bi di leeral ne déposé candidature yi ci wote député yii juróom benn fan ci weeru mai wii ndorte la lañ nemmeeku mooy xam na ci coalition yoo xam ne fa ñoo wute seen rendez-vous ba de bés bi yéen a kaay xëy moom di ñu xamal na njiiti réew Macky na tàngalaat na coowal mandat njiiti réew ci Afrique gi ñu war a yemale direct news moom xëy di ñaan yàlla yoon def liggéeyam ci mbiru assu soxna sa ci diiwaanu Louga te waroon a xam doom ñu càggantee ko enquête yéen a moom xëy di àddu ci njuumte yi nga xam ne fa ñuy wax ne fay ci waa kër docteur lim ko fajee baaxut docteur bi lim def du yoon ba tax suñ mbokk mi dee na ñu porter plainte coow yu bëri yooyu ñu nemmeeku ci kër docteur ci la enquête yéen a kaay xëy moom it addu la ca baax ak la ca bon la soleil yéen a kaay mel ni ku naan sénégalais yi jafe-jafe wàllu wér-géeram léegi tey mu jeex sant leen yàlla yaw seetal syndicaliste yi ak nguurug sénégal talaata bi di ñëw ci la ñuy dajaloo xaatim signé déggoo ci seen biir su ko defee jafe yi jeex keneen ku jeexal jafe-jafe ya amoon Senelec du kenn ku may Pape Mademba Bitèye njiital Senelec Khalifa Wade responsable APR ca Kaolack ndàngaam moo ko wax ci 24 heures yéen a kaay yow seetal Xalifa Wàdd fa xam la ne su fekkee dëgg rek la ñuy wax Pape Mademba Bitèye bi mu yoree Senelec ba léegi liggéey na fa liggéey bu am solo ci diir bu gàttan ah soppi na xar kër ga yokku na ko ci fànn yépp naka noonu dëkk xàll yi yu baree bari yóbbu na fa courant rawatina diwaanu Saalum kon man faa koy félicité rafet lu taxawaayam teral yéen a kaay moom di ñu xamal ne waa ANACIM nee nañu newetu ren bi fa a bëri ndox lool te buñ naan nawet ndox a tax kon nag na gaañ ruuji waajal bàyyi man ma bàyyi man ma bay loolu dem ca stade yéen a fekk fa Sadio maane ak waa Liverpool yi war a laale ak Tottenham tey yéen a kaay bi ne boo moytuut mu nekk gàllankoor ci ñoom de ngir jël championnat ba Man City tamit suba Newcastle lay balak kuñ ci mbuqi nag wala nga match nil na la wër na ñàkk nga championnat ba de leer la leer ba mel ni jant tusu baar mooy na rey nit fa gën a bëri fi mu toll nii Sénégal presque bët bu set nga dégg ku ñu rey ayaw seetal ñaari xale yu góor ay xarit ñoo doon xuloo ndax xale bu jigéen gel maa ko nobak yaa ko nobak waroo ko nobak bàyyil ma jël kooku fa ñuy génn waroo maa suufoog yu ñàkk fayda moo leen boole ba benn xarit ba fàllu jaañ rocci paaka bojj ko xaritam ba baabu nduur ca dënd ba ñu xenu yóbbu hôpital ca yoon wa mu doxee fa faatu ñàkk bakkanam allah yëf yaa ca daaru cubbu libération moo ñu ko xamal ñoom ñaar fukki at ak juróom-ñett lañ xam léegi ko yéen a kaay ne ba yëf ya amee nag waa quartier ba fa ñoo dem kër ñoom fàllu ne fañ koy taxal dóor waa kër ga bañ dee loolu da lañ bëggoon waaye mujjuta am <laughs> waa ma ne ay jeune 18 ans seen itte war nekk ut xam-xam wala jàng métier defar seen avenir ëllëg ngeen di xuloo ndax gel xale bu jigéen ba kenn ka ray morom ngeen ay xarit ngeen xale jigéen yi fañ koo jar